jàpp mais Amadou laisse-moi laisse-moi prendre. ma même euh, koy wax soo ma ko yéenee dinaa la vérité <laughs> mooy boo woowee tout le groupe parlementaire et les gens. son passage à l'Assemblée. Amadou Ba président groupe parlementaire PASTEF à l'Assemblée nationale euh, avec Abdou on aura des voilà ce sera un régal. voilà en tout cas Amadou Ba il sera il sera meilleur que Birame Souleye laisse-moi assumer. man de xam naa ni j'apprendrai ah. beaucoup de Birame Souleye. oh d'accord en tant que député je parle <laughs> su ma demee assemblée. d'accord su ma demoon assemblée j'apprendrai de tous les députés même du pouvoir. d'accord mais mais assemblée c'est un lieu prestigieux. boo xam ni dañ fay jàng. dëgg la. voilà vous êtes quelqu'un de modeste. mais Amadou du tout modeste <laughs> au contraire <laughs> mais Amadou. waaw euh, jour majorité mm-hmm. ni ngeen ko matérialiser wax ko urbi orbi mm-hmm. euh, concernant le débat sur l'homosexualité mm-hmm. ngeen Ousmane Sonko mu ne moom bu jëlee nguur gi la première chose qu'il fera c'est de criminaliser l'homosexualité di ngeen matérialiser promesse boobu gis nga ah c'est c'est c'est je sais pas si je dois dire c'est dommage ou pas mm. Ousmane Sonko dafa dem université ki est le lieu des grands débats quand même tenir le président Ousmane Sonko un discours pendant une heure de temps sur les relations entre l'Occident et l'Afrique mu invoquer tous les problèmes man je ne reviens pas si vous allez matérialiser qui a été cette promesse là ce discours parce que cette promesse là n'a pas été réitérée à l'université soo ma laajoon dara on a dit. Euh, que il faut pas que l'Occident nous impose. Euh, sa conception maa ngi ñëw di affaire boobu. et puis l'homosexualité est tolérée et gérée. déglu ma li may wax c'est ça date de l'année dernière. déglu ma maa ngi ñëw mu indi boo ma laajoon est-ce que vous allez respecter votre promesse. waaw loolu laa wax réformer le franc fa est-ce que bo question yi mu posé wax na sur le franc CFA expliquer pourquoi c'est pas une bonne monnaie pour nos économies. soulever la question des bases militaires montrer c'est une incongruité géopolitique diplomatique mu exister au cœur de Dakar ay base étrangères ay bases étrangères expliquer suñu ressources naturelles yi niñ koy exploiter muy dem ñu jot ci ay miettes. mais man mais nous on a le droit non mais mais man tamit j'ai le droit dans mes réponses de replacer je ne suis dans le débat à l'université je reviens sur ça. est-ce que vous allez matérialiser ce discours important sur le franc CFA la monnaie sur les bases militaires sur les ressources naturelles redéfinir le concept global de relation yu mu bëgg a am. boo xam ne dafa bëgg les pays africain am ko ba ñu ñu ñu ngeen polier loolu avec le débat sur l'homosexualité et ce qui est domage mais bàyyil ngeen polier loolu <laughs> ñun on n'a rien polié. une partie de la presse sénégalaise va se décrédibiliser avec ce débat et c'est déjà décrédibilisé avec ce débat. Comment? parce que ñëw nañ ni Ousmane Sonko nee na dañuy tolérer homosexualité et cetera. nga dem la presse étrangère à l'inverse c'est comme le jour may ma may ma ma ñëw ma wax la lu presse étrangère bi wax. Les grands, ceux qui font les gros titres, les New York Times, les France, les Libération, tous les grands médias, journaux internationaux. daal ni le président Ousmane Sonko nee na si l'Occident souhaite, veut influer, influencer, imposer les thématiques LGBT dans certains pays loolu mooy nekk le prochain casus belli loolu mooy nekk déglul li mu wax c'est grave pour ñoom mais doyul pour may ma rek mu ne ma rek mu ne loolu mooy nekk la prochaine cause de guerre guerre ñoom ñëpp reprendre casus belli toute la presse internationale nga ñëw au Sénégal dans son propre pays même les les les les, les presses favorables au LGBT comme les journal le journal Tétu et autres daat koy jàppe comme le l'homophobe le plus absolu tyran et cetera ñoom ñëpp ni Ousmane Sonko a dit fort sur l'homosexualité parce que ku dem ba koy traité de casus belli mooy cause de guerre entre des nations moo lay wan ni c'est une question approche bi mu ci am c'est une approche très grave pour montrer qu'il y aura une résistance farouche su ñu bëggee imposer ce mode de vie mu ne leen on vous respecte sur la polygamie yéen dàq ngeen jàpp ngeen ni c'est une sauvagerie ku teg fulaat sa bopp ngeen ni ko doo nit tu es dominé mais vous acceptez que deux hommes ou deux femmes se marient vous acceptez que deux hommes am ay doom par le procédé. de mais Amadou vraiment yow yaa ñëw ci débat bi. non non Amadou Amadou yéen ngeen ñëw. di nga Amadou Amadou Amadou may ma waaw may ma parenthèse dinaa finir fii de. dinaa finir di nga finir non non je vais te laisser finir. non non tu vas finir bien sûr. non non tu vas finir bien sûr. non non may ma une précision Amadou. moi je ne reviens pas sur non, ce débat là débat boobu ngay revenir non dama ne est-ce que di ngeen matérialiser li ma la mën a wax mooy cette promesse là man waxatuma li Ousmane Sonko wax université nga ñëw ngeen bind toute une partie de la presse les mêmes acteurs yi indi affaire u armée beeg affaire yooyu daal ni Oma Ousmane Sonko dafa ni toléré nañ homosexuel. mais wax na ko wala waxu ko. li mu wax dafa leer. dafa Ousmane wax naa ko Moustapha Diakhaté Ousmane Sonko a eu deux tempos dans son discours. Non, et j'ai rappelé hier daxal rek démb face à Moustapha Diakhaté nee naa ko dans un premier temps Ousmane Sonko euh, position de régi bi la ci am. fi mu juumee peut-être c'est c'est c'est un choix c'est un problème de choix des mots. c'est quand il dit ça va être tol c'est toléré. c'est géré moo ko wax. dafa ni la. et les gens disent que ils devaient pas dire ça. déedéet les gens du wax les gens. ma ne si y a eu y a eu levée de bouclier au plan national. pendant une semaine ce débat a alimenté les. encore euh, euh, une fois tempête dans des verres d'eau ngeen di wax mais sauf que. levée de bouclier bi nii la demee. sauf que Amadou man. indi lu ma débat université man waxuma ci loolu man maa ñëw pour rebondir sur ça. wala da nga tontu gars yi da nga bëgg a profité fi tontu gars leen bëgg a wax. cette phase pratique bi ngeen bëgg am une partie de la mais presse. mais il n'a pas dit que c'est toléré, c'est géré. dafa ni ah. l'homosexualité existe depuis jamono jamono yonent yàlla lool existe ça existe dans toutes les sociétés toutes les sociétés de 1960 à 1900 à 2000 yow mës nga dégg suñu journaux yi coowal homosexualité dans nos tribunaux est que mës nga ko dégg. looy wax ni déggoo ma de je damay poser question. wala dans la société de manière globale est-ce que les histoires d'homosexualité yéen ko def arme de guerre may ma maa ngi ñëw est-ce que mën naa la <laughs> poser question xam nekk en coalition avec ànd sàmm jikko yi xam nga fan la débat bi jógee moo nekk en coalition avec ànd sàmm jikko yi ak l'opposition de Yewwi dem def ci tournée dans les foyers religieux ne leen bu ñu gañee Macky Sall bu ñu ko joxee majorité il va légaliser l'homosexualité alors que Macky Sall avait crié urbi orbi que ñun nekkuñu ci position légaliser homosexualité yu bëri yoo xamul donc loolu moo topp Ousmane Sonko dépp ko déglu ma si dafa ni la jusqu'à ce que l'Occident def ko ñoom un projet de société combat politique tu ne vraiment boo dul comprendre euh, boo bëggul déglu dëgg gi ñu la wax mooy dafa ni la de 1960 indépendance ba jusque dans les années 2000 homosexualité am na Sénégal waaw mais daawoo ko dégg mu ne la population yi dañoo absorbé woon comme un phénomène individuel koo xam ne ay nit la concerné buñ koy def dañ koy nëbb kenn du ko yëg kenn du ko gis société bi musoo dégg fii taal nañ may ma ma ñëw taal nañ ay homosexuel ak yooyu mës nga ko dégg Sénégal ça veut pas dire que amul tolérance bi sens boobu la la ko wax nee na tubaab yi nag bi ngeen bëggee jël ko def ko un projet de société foofu fu mettez en danger les personnes yi koy dund moom bañ na ko ba il parle de phénomène mu ne leen nag teg ci bu ngeen ñu ko nag bëggee imposer ce sera une cause de guerre man waxuma la damay guerre ci tel domaine wala tel domaine économie wala dara dama ni ne bis bu ngeen bëggee imposer fi loolu ce sera une cause de guerre. Mais,